Aziz المسير يسير بي التذكر الذي خالني لا كريم علي معلوم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكور نزولي وتأييدي ويسير الرداد من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيري ومكسي وسيرتي خديما له وهو الخديم يمير أجاب al muassasa thaqafiya lil usra al musubiya nga xam ne ni mooy euh, fondation bi nga xam ne ni moo ŋànk mbooleem ñi nga xam ne ni dañoo sant Bousso walla nuñ ca laale rek euh, dellu ci ñaari maam yu baax yooyu mu Serigne Bousso bi ak Serigne Saa Bousso euh, comme ni nga ko waxee bis bi mel na ne yàgg nañ ko taxawal waaye nag bis bu nekk rek day mel ne ñi nga xam ne ni ñoo koy taxawal dafay nekk ci ñoom maanaam wareet warteef gàllu seenu loos année bu ñëw rek wala at mu ñëw rek gàcceel at ma nga xam ne nii moo ko jiitu woon su ko defee xam nañ ne am na jëmm yoo xam ne nii yàgg nañ leen a gis ci bis bu mel nii ñu di ko taxawal ngir xes xër guñ xër ci seen maam yooyu nga xam ne nii seen dund lépp lu baax la luñ jëmale ci yàlla subhaanahu wa taala comme ni ngeen ko waxee nag ren moom mel na ne wax dëgg yàlla am na benn touche particulière boo xam ne nii mënees na ko cee euh, wax dëgg yàlla gendiku ndax gis nañ ne communication bi nga xam ne nii moom lañ ci jàllale ren wax dëgg yàlla soo ko comparé ak année yi nga xam ne ñoo jàlle woon xam nga ne euh, daayira bi doxaat na ci ay jéego yu am solo yoo xam ne nii fesal na ko te mel na ne bis bi jëmal na ko su ko defee programme bi nga xam ne nii moo am ci euh, euh, ci ci bis bi nañ ko doxee woon rek nooñu ko daan dox nga xam ne ni dañ ko daan laytaaye alquranul karim loolu nag dafay mel ne dañ koo jëlee rek ci maanaam ndono mag ñi ndax mag ñi dañuy nettali ne sëñ Abdou Salaam doon na ko nettali wax ne Serigne Modou Moustapha bi mu demee ba nga xam ne ni dafa waroon a taxawalal bis bi nga xam ne moom la doon gis taxawalal Serigne Touba ñëwoon na ci sëñ Mbàkke Buso di ko ko ci yëgal ak di ca sàkku ndimbal euh, euh, di ca sàkku maanaam ndigal waaye bokk ci la nga xam ne moom la ko waxoon daf ne ko woon nañ ko laytaaye alxuraan nañ gis na wala nañ seet li nga xam ne nii moom la Serigne Touba dund ci kaw suuf ci ay at ci zahir ñu laytaaye ko lu toll na ci ay kaamil su ko defee lépp lu ñu teg rek dana ko attan kon dafay mel na loola nen nekk na loo xam ne roy nañ ko ca ñu jëmmale bis bi tàmbulee ko njàngam alxuraan loola nag la ko jiitu woon mooy daara yëpp yi nga xam ne ni aju nañ ci sëñ Bousso bi ak sëñ Saa Bousso euh, bañ ko jàppee bis ba léegi ñu ngi jàng ay kaamil waaye ñu ñëw nag euh, ca ca jàkkañ Bousso bi jëmmal fa njàngam alxuraan ba tëjee ko fa su ko defee la ca tege nag mooy marche bi nga xam ne ni comme ni nga ko waxee dañ ko daan def ci ngoon waaye ñu gis ne xëy na daana xat te mbooloo mi yokku na ñu ne nag nañ ko def ci suba gi jëmmale ko euh, bis bi ñëw fii ci suñu maam ju tedd ji nga xam ne nii suñ ko siyaaree mel na ne siyaare nañ maam yu baax yëpp waaye siyaare yoon nañ tamit sëñ Saabuso mu mel ne tamit dox bi nga xam ne ni moom la ñuy dox nekk na dox boo xam ne nii sosuñ ko waaye dañ koo sof ndax xam ngeen ne Serigne Touba radiyallahu taala anhu fii la ak këram nekkoon waaye li mag ñi nettali mooy xam nañ ne daana jóge fii di dem fee ca jàkka Mbuso bi fa mu nekk ne di fa jaamu yàlla di fa ànd ak benn taalibeem bi nga xam ne nii doomi sëriñ Bousso ba la muy sëñ bu Bousso ba foofa la taalifi Masaalikul Jinaan kon dafay mel ne képp koo xam ne jug nga ci jàkkay bu be ñëw di dox jëm fii mel na ne yaa ngi jaar ci cànk yoo xam ne sëriñ Tuubaa jaara ndof kon loolu benn la ci waaye gis nañ ne tamit sëriñ bu be bi mu wàccee liggéey sëriñ tubaa ci boppam moo jël jël tàngam tànkam ànd ak ñenn ci kàngam yi nga xam ne nii ñoo ko daroon dox tànkam ba ñëw fii ci sëriñ bu be ziyaare ko ñaanal ko kon loolu tamit muy beneen dox boo xam ne nii waris naa mën a for tànk yooyu topp ca ngir ziar ngir ngir ngir barkeelu ca kon loolu tamit euh, mel na ne maanaam dox bi nga xam ne moom lay dox jëmmal na loolu kon loolu daal euh, moom la ñu wax mën a wax ci dox bi nga xam ne moom la ñuy dox ñu xam ne du luñ sos waaye luñ sof la fa mel ne xam nga euh, mbusoo bi moom dafa am lu ñu leen xamee mooy yàlla dafa lam leen dafa dafa am lu mu leen lim leen lu mu leen lu mu leen lu mu leen jagleel mooy maam joo xam ne nii buñ ca delloo rek ñëpp gis seen bopp kon ci wàllu booloo ak wàllu nekk benn kon su fekkente ni bi dañoo maanaam dañoo tànn thème yu mel noonu di ca waxtaan dafay mel ne képp koo xam ne nii ñëw nga ci bisab mbusoobe fekk fa thème bu mel noonu euh, doo laaj lu tax ndax loolu lu ci ñoom la luñ xam ci ñoom la xëy na yëngatuy àdduna bariwuñ ko loolu la ko waree woon mooy Serigne Touba mi nga xam ne nii mooy séddale dafa am fu mu leen féetaloon leen ko féetalee tamit dafay mel ne daf ko jige ca euh, maanaam yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba muy seddale cër ya ansaar yi lam leen waxoon mooy jox naa leen lii waaye yéen lu àdduna yëngatu yëngatu yëngatu bu leen ca bokk xaar leen rek ba fekk ma ci xawdu ba nga xam ne ni sama sama déeg booba soo ne lii ma leen dénkoon ngeen tée ko fa la mbir ma nekk Sëriñ tamit jëloon li nga xam ne ni mooy diine ji dénk ko waa Mbusoobe ba mu leen ko dénkee tamit lam leen waxoon mooy lu jamono jamono yëngatu yëngatu yow yéen bu leen bu leen kenn kon Sëriñ Tubaa ma xaar ca maanaam dex ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nii moo tax ndonu lu rëy loolu lu àdduna yëngatu yëngatu lu wax ji bari bari waa Mbuso bi moom ci lañ nekk lañ nekk mooy nekk ci ndigal Serigne Touba nekk ci dundal euh, lislaam nekk ci dundal diine loolu mooy ndenkaan li nga xam ne ku nekk ci ñun yënga ne lii la la Serigne Touba bàyyee ñu nekk ca euh, di ca bay waar te loolu lépp nag wax dëgg yàlla dafay mel ni ci mag ñi ñoom ci ñoom lañ ko royee sax loolu rek lañ nekkoon bàyyee ñu ko muy noonu loo xam ne nii képp koo xam ne nii ku sant Bousso la war nga ciy bàyyi xel bu baax a baax euh, alhamdulilahi rabil alamin nag bi nga xam ne nii yàlla yëgloo nañu loolu ba fu ñu toll ñu koy bàyyi xel ah. li ñuy wax rek mooy euh, ñun moom diine yàlla daf koo andi ngir mu euh, lijjanti àdduna ak kon su fekkente ne bis yu mel nii dafa ñëw te foo toll mel na ne bari na ñoo xam ne dañuy jàmbat jamono ak ay yàqu-yàqam kon dafay mel ne jamono du moom mooy yàqu waaye jamono ñooy yàqu kon nit ñi bu ñu defaraatee seen bopp rek jamono jag jag kon lu mel nii bi ñu fi ñëwee li ñuy wax mooy ku nekk sa sa ci sa bopp la nga xam ne ni moo lay dimbale mooy nga xam fa nga jëm fa nga xam ko da ngay xam fa nga jógee say maam ci lan lañ nekkoon ku nekk bu fekkente ne dellu na ci lu baax la nga xam ne say maam ci la nekkoon rek lépp dana dana yéwénaat lépp dana kon nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ne àdduna bi nga xam ne ni moom lañ nekk dañ fay jaar jàll waaye ku nekk ci ñun am na loo xam ne ni moom la la yàlla bàyyeel muy nonu loo xam ne nii boo ko sàmmee boo demee ëllëg ak si biir ci kanam mag ñi boo koy boo leen koy présenté wala boo leen koy gaaral doo am kersa. te a eh, nga xam ne ni moo aju ci sët yi nga xam ne ni ñoo nekk ci gannaaw Serigne Bousso bi ak Serigne Saa Bousso li ñu leen di xamal mooy ku nekk lan la ñor yaa nga ci te ku nekkul ci la nga war a nekk ca da nga nekk ci leneen. kon su fekkente ne bi yàlla dafa laa baaxe nga am maam joo xam ne nii foo ko présenté foo ko gaaral ñëpp xam ne kii kat ku mat a gaaral la kon nag loolu yow yaay xam sa bopp kon ñi ngi lancé appel di xam ne ñi nga xam ne ni ñëwoon nañ ñu gën a euh, euh, maanaam jàjju gën a dëgëral taxawaay bi waaye ñi nga xam ne xëy na nag euh, ñëwaguñ woon nañ xam ne mbir mi moom ki ñëw tey ak ki ñëw démb yéen ci yem ubbil nañ ñëpp bunt yi nañ ñëpp jàpp ngir mbir mi jëm ci kanam euh, su ko defee tamit sëriñ bu soobee moom dafay mel ne sëriñ tubaa ci boppam moo wax li muy wax ci moom ay wax yu rëy la yoo xam ne nii bokk na ci li nga xam ne nii moom la waxoon mooy bi ñu ko andee fii maam borom saam bi mu wàccee liggéey dafa wax ne nañ ko andi ci moom ndax mi ngi koy waaj mi ngi koy laaj wéttal bañ ko fa indee ba noppi dafa wax ne seen diggante day ñaari malaaka yi nga xam ne nii ñooy laaj ci bàmmeel muy munkar ak nakiir xamuñu ko kon képp koo xam ne nii andi lañ la ci barab yi mel na ne yow texi nga àdduna ak alaxira kon nag loola tamit bokk na ci li nga xam ne nii moom lañ ko bën a bëgg a jëmmal lexoon naa léegi ne sëriñ be fii la euh, këram woon fii nga xam ne fii lañ ko denc moo nekkoon jàkkaam ca penkoom lañ penku jàkka ji lañ ko denc moo tax ñu ñu ñu demoon ba nga xam ne ni xeeñtu nañ ko ba xam kër ga fa mu toll ñu dem ci maire bi fi nekkoon muy sëñ Abdou Abdou Mbacke Ndaw ba mu joxaat ñu place booba kon tamit ñu ngi xamal nit ñëpp ne ñu ngi waajal te fi xeer woo xam ne ni dañ fee bëgg a taxawalaat kër googu nga xam ne sëriñ Bousso ba fi la dëkkoon jëmmalaat ko te sëñ Touba nag bi mu jugee maanaam bi mu jugee euh, Saalum ñëw nga xam ne maanaam euh, Mabou Diakhou Ba moom nga xam ne nii euh, euh, moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon jihaad ci yoonu yàlla sëñ Bousso ba mu demee ci jihaad yi ba ñëw fekk fi sëñ sëñ sëñ Touba la ko sëñ Touba rafaati la kër googu moom daal dem sañ ci Daaru Salaam kon nag ngir taxawalaat kër googu yaakaar naa ne képp koo xam ne ni jàpp nga ci yaa ngi jàpp ci loo xam ne ni say mbir mën na cee jëkk àdduna ak kon nañ ci bàyyi bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu